yapacağım istisnai waaw allo eh comment tu vas mbokk mi El Hadj Ibrahima Ndiaye na nga def yaa ngi am jàmm waaw mais man tout juste maa ngi la bëggoon woo sax parce que sama bagage yi fan la toll waaw ok parce que quand même dama ko xaw yàkkamti nag parce que xam nga clientèle bi ça bouge là normalement war naa ci jot dans 48 heures ah voilà c'est bon alors et la famille ça va naka liggéey mi ngi dox voilà mon frère merci beaucoup. tu vas bien waaw mais d'accord kon yow xam naa ni am kay waaw même ba après yow daa daa ñu déggoo léegi incha allah je vais t'appeler. ah mon ah, bien. na nga yaram de. mbaa entre toogal na def. yaa ngi am jàmm. waa maa ngi ci jàmm bu baax. le grand mécanicien. <laughs> le professionnel. sa <laughs> va mais c'est important quand même xam nga métier dafay mokk. xam nga nit ñi suñu jël seen alal. di ko joxe. c'est pour ñu am satisfaction. alors mais moi je suis satisfait. Ah, quand même suma oto yëpp. tu parviens à mettre tout beaucoup d'équilibre. surtout xam nga suma oto doom ji xamante ni sama bien aimé. waaw. nit lu muy liggéey na ko na ko bàyyi xel. xam nga mag ñi bu ñuy dem di wuti xam-xam. Mm-hmm. parents yi di jël seen alal di ko def ci doom yi. pour euh, professionnalisme moo tax. dëgg la la te yow vraiment tu maintiens ta position. kontaan naa. je suis très content. ñoo ko bokk. ñoom mm-hmm. euh, métier bi moom daanaka. waaw soo ko xasee jàng ba am ci yenn diplôme yi li la war mooy que ne nga def li nga war a def. c'est bien dit. waaw te nit ki su la wóoloo ba jox la alalam. Mm-hmm. li la war mooy que ne nga defal ko li mu bëgg. c'est bien dit. xam nga te métier bi tamit toll nañ ci foo xamante ni duñ ci tricher. xam sànq nag laa ñëw place ba nii bi ma ñëwee laa fekk oto bi. waaw pour man sax yaa ko fa bàyyi mais dañu ne ma euh, kii Tima moo ko fa bàyyi. yaa moo ko fa bàyyi. waaw waaw waaw. moo sànq nii. tout à fait bàyyi woon na fa sax xaalis. mais dafa des tuuti rek. dafa des tuuti ah, dafa des quoi. Hmm. toll ci ay san mille parce que euh, oto bi bi ñu ñëwee xool naa ko. Hmm, hmm. xool naa ko mais gis naa ne daal li mu koy gëdd mooy ëpp sax li mu koy dawal. tout à mun na mun na yàq lu bari daal ci oto bi. su ma sa yoon tamit ci côté boobu. nga waxtaan ci am. non dinaa ci waxtaan moom. ba xam nga xale la. ko bàyyi parfois day mu neex rek. waaw mu defee ne àdduna ngi noonu. waaw gis nga mais quand même naa ci waxtaan ak moom. waaw xaw a wàññi. Mm-hmm. tuuti quand même parce que dafa am lu am solo équilibré. Mm-hmm. dafa war a cette route là. Mm-hmm. Euh, dafa am ay policiers yoo xam ne. kenn du leen teg bët. waaw gis nga de. voilà kon loolu dafa jar a bàyyi xel. dafa jar a bàyyi xel bu baax. mais dinaa ci waxtaan ak moom pour mu équilibré quand même. quand même ça conduit loolu amul benn problème. mais pour les cent mille francs. dinaa la ko envoyé. waaw waaw waaw dinaa la ko envoyé. waaw dama doon bëri xaaral xaaral ma ñëw dem. par façon. mais kontaan na. waaw maa la gën a kontaan mais accroche toi. waaw liggéey bi rafet na. merci j'ai beaucoup de satisfaction. merci côté yi rafet na. merci mais sa jigéen moom. Mhm. dinaa waxtaan ak moom. waaw incha allah waaw. waaw yàlla baax bu may ñëw incha allah xam naa. y' a pas de façon y' a pas de façon y' a pas de façon. merci beaucoup. merci Père merci Bisson merci. joxe sama euro pare nga di ma tardé loolu mais booy am na lu ma la war a tegal booy lu garaaw booy lu garaaw lu mel nan booy tu te rappelles Amina booy Amina waaw booy mu àndaloon démb rek yoo xam nga ko ah yee yee yee xam naa Amina booy booy bee ma set si démb booy ma sañ sa loo xamante ni non man mënu ma comprendre quoi lu moo laa lay tegal nii <laughs> mais booy moo booy ni booy bi sañ sa ba pare dox ndànk daagu ba dugg sama biir néeg booy non affaire bu garaaw laa lay tegal nii booy booy fils bi li ma dund ak moom musuma ko dund moom booy booy maa ko tas comme kuy tas mu dooru jakarta laa la pièce de pièce laa ko def booy xoolal booy ma jàkkaarloog balcon booy bi non booy lu garaaw laa lay tegal nii. waaw yow nga may wax ay balcon yow est-ce que ça va nu mu demee nii gars. est-ce que yaa yaa ngi xalaat laa la wax. Papino yow lan moo la dal laa la lan nga li nga dund ak booy bi kooku yaa moom la yow la concerné loolu da nga koy def secret sa diggante moom yow li ngay dund ak moom nii nii nii est-ce que boo waree dem boo demee ba war a takk soxna di nga ko takk. mais le fait que sama gaañ nga moo tax ma lay tegal nu mu demee. Eh, ne lu ñu nekk gaañ ak gaañ lu ñu nekk gaañ ak du tee ma wax la li am. li nga jigéen loo dund moom yaa moom la secret la. yow Sénégal est-ce dina dem Sénégal du dem ndax sa genre gii jigéen da nga koy suturaal da nga koy sargal est-ce que kii kii boo demee ba li nga li nga bëgg ci moom nii nga koy def ak moom di ko sekk ak moom est-ce que boo demee ba war a takk jabar di nga ko takk. non booy yow dafa mel ni yow li may dund booy daf la metti quoi booy. man la moom yow. wala li ma la raw moo tax gaan booy. Eh, da may da may déglu laa la wax déglu ma. li wuy ma loolu dama ne eh lu ma bëgg a wax yow dama ne jigéen da nga koy day ne finalement c'est-à-dire li nga gi nga li nga dund ak jigéen yaa yaa xale yaa moom la du yoon sax ngay ñëw si man dama ko tegal ok nice quoi nice ma xam naa da nga mer mais coolu nañ dugg gaan nañ dem balu ñoo dugg dama ne la beneen yoon boo ko defatee sama diggante ak yow fii lay yem amul belem gaan ñoo quoi doxal ñu dem